salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora bi waaw tey dañuy def benn taxaw seetlu rek jëmale ko ci ville de Pikine bi parce que dama seetaan point de presse bu Eumeu Sène ak euh, ville de pekin ni mu toll ak Pikine histoire bi fa nekk ak bi moom ñu yor genre façon stade yi nga xamante ni. dafa waroon nekk rek benn ASC wu Pikine ASC yi koñu koñ yi koñ yi ñoo waroon def genre stade yu mel nga xool ñàkk de sécurité bi nekk ci biir stade boobu pratiquement ay benn ñaari tribune ñu fay nekk ci combien de personnes yoo xamante ni di fay ñu waroon a defar stade bu moderne au moins boo xamante ni sax boo ko présenté war na coupe d'Afrique war na mën a jot ñu jouer fa coupe d'Afrique mais loo xamante ni ñaay bi nga xam moo yor AS Pikine bi sax war warta mën a entraîner ci stade dafa war a nekk stade bu ndaw mais pas bu muy recevoir comme ay eh, maanaam mu nekk stade bu mag bi quoi dafa war a nekk loo xam nawetaan yi ñoo waroon am dafa entraîner ci lii rek du muy prouver mooy pour wan waa banlieue bi nga xamante ni bu élection jotee xelu candidat yëpp ci ci ñoom lay nekk ñoom aussi ñoo war a xam ni. amul respect bi war ak ak yelleef du war ci ñoom amuñu ko muy njëkk ci seen maire yi nga xamante ni ñoom la ñuy élire foofu kenn ko nga xamante ni jóg pour liggéey pour Pikine développer amul amaguñ ko parce que bu ngeen koy rappelé Pikine bi muy Pikine ba léegi ban changement ngeen fa gis à part au temps de Abdoulaye Wade sax tali yi ñu fa defar xeet yu mel noonu mais ci infrastructure yi lu ñu mën a wax ak salte bi nga xamante ni moo nekk foofu. ak ñàkk de moyen bi bi bi daw foofu Pikine caaro yi ginnaaw raay pap pap zone boobu yëpp Parcelles Assainies la même chose ñooñu sax dinañ xaw a tane tuuti mais parcelle même problème bi Pikine amit daf ko am assainissement ak lépp boo fa gisee open de presse bu Modou Lo bi bu fay dem tamit même chose lay doon c'est sûr amuñu stade bu ñuy mën a nekk ah nit ñi amuñu sécurité maanaam maanaam askan gouvernement bi war a sóoraale ni askan wi dafa lii ak lii dafa yellu ci moom ki nga xamante ni dafay nekk ci sport lii kat war na mën a am espace boo xamante ni dina ko permetre li mu bëgg a yëngoo ci sport mu dem foofu mu may ko condition yëpp war a réunir aussi foofu mu nekk stade moderne yoo xamante ni dafay dëppoo ak jamono ci lépp lu jëm ci wàllu yoon mais xoolal yi nga gis ni par exemple façon stade yi mënoo ko évaluer xam ñaata la lu toll ni ville de Pikine war a mën a yor ay façon stade yu mel nii nga xamante ni maa day taali bu fa musiba kenn wax du xale yu ndaw yi nekk fa amul sapeur pompier sax gisuma ko fa fu ay centaine de centaine de personnes di dajaloo aussi ñi nga xamante ni ñoo ciy nekk muy muy lutteurs yi di mbër yi fay ñëw pour man euh, dama gis ni ñoom it jaruñu sax yenn mobilisation yi ñu ko def bien vrai que ni man sport bu ma intéressé woon la mais dama dem ba gis égoïste bi nga xamante ni gis ni ñoom seen bopp aussi jaratuñu askan wi di daw seen ginnaaw. na nekk rek benn ab sport boo xamante ni eh, dafa da nga ko bëgg a seetaan nga seetaan ko après c'est tout mais fii laa dëkk ñu dem ba yóbbu ko ci niveau boo xamante ni dafay yàq mais defarul ça ne veut yow tu de Pikine tu habites à Pikine waroo supporter benn mbër bu nekk bu nekk en dehors de yooyu dafay dem ba day indi benn te dafa doon war a rafet ki nga xamante ni dafay ville bi yëpp dañuy dajaloo nekk sa ginnaaw di la soutenir yow en retour war nañuy mën a gis loo xamante ni da nga koy delloowaat ville bi. mooy ngay gis ni di def ay ay genre mën nga am say créer sa programme yoo xamante ni da ngay di sensibiliser di wax ak état di ko won jafe-jafe yi nga xamante ni fi nga dëkk ñoom moom la ñuy dund loolu dafay rafet mais mënoo rek par exemple bu làmb ji jotee ñun yow la ñu ñun ànd ak yow après boo ci yow pare pare nga ci li ngay def mooy maa ngi leen di remercier maa ngi leen di remercier te nga waroon mu nekk hmm, euh, ki nga xamante ni. tawat beeg lépp waroon à travers yow war nga mën a lancer message état parce que am nga tur boo xamante ni mbooloo muy sa ginnaaw di la soutenir war nga mën di wax ak état ba mu leen di bàyyi xel yow bu ko bu ko bu ko par exemple Eumeu bi nekk Pikine defee Ama Baldé def ko euh, Boy Niang genre yooyu def ko Modou loolu la même chose mu def noonu Gris doo def na le xam nga loolu dafay rafet mais mënoo par exemple yow bu fekkente ne da nga nekk ci benn gox. soo demee ba mën dangay jóge ci gox boobu jóge bi nga fay jóge tant que amoo événement doo fi ñëwaat rassembler leen ñoom ñu xam donc kon nañ xamee seen tawat mu war a nekk loo xamante ni jàppalante bi foofu la war a njëkki mooy lu ñuy yëngal ci wàllu lu jëm ci banlieue rek da nga war a taxaw yow yaa war di créer loolu parce que am nga tur boo xamante ni soo waxee dinañ la dégg dafay am détail yoo xamante ni bu fekkee réew dafa tardé surtout banlieue bi ni ñu tarde nii war a mën a stagné wu nekk ci ay détails yoo xamante ni ay diw nii diw nii kii faral kii mais làmb dafa dépassé fii cadre bi parce que bu fekkee dañu bëgg nekk ñun suñu lutte bi mën a nekk loo xamante ni dañuy dem parce que fi tant que ñu ngi koy defee nii tubaab du ko mës a def la preuve tubaab bi ci jot dugg sax quelque la rek après génnaat ci parce que mënul nekk benn kiiwu international parce que moderniser wuñu ko. nii ñuy def ni tubaab bi lim ciy mën rek lu dul seetaan la xool xam ni ñii fi ñu toll mooy lii waaw gis ñun suñu mentalité fi mu toll jeex na mais cosaan bi cosaan bi cosaan bi dafa am loo xamante ni euh, bu fekkoon ci jamonoy cosaan la bu ko daan laajee cinq cinq franc muy barkeel tey boo demee ñu la ci laaj cent mille franc ça veut dire que ni amul dara nekkatu fa waaw loolu dafay am loo xamante ni euh, faw ñu bàyyi ci xel aussi quoi. banlieue bi ñu gën a taxawaat gën a suudewaat autour de l' essentiel aussi quoi parce que c' est pas seulement la lutte moo nekk foofu du question sport rek dañu war a mën a topp nature bi dafa dañ ko war di sentir ci banlieue bi espace yi nga xamante ni sax moom la ñu yoroon léegi ñu ko mujjee def di terrasser lépp ba ko def ay kër donc ban espace la nit di am nit ci war di respirer air pur mais bu fekkente ne ni yow zone loo am mu demee noonu ñu faagagal lépp daf koy dëkkuwaay te dëkkuwaay luñ ci prévoir loo xamante ni askan wi da koy jëriñoo amul. ngay dem parcelle aussi la même chose géejuwaay bi Balla Gaye dëkk tamit même chose stade Amadou Barry bi ñu juddoo ba léegi nii ñu ko fekkee noonu la mel ban changement moo fa nekk ñu am space boo xamante ni dañu waroon mën a am ay stade yoo xamante ni dafay dina moderne d'une façon boo xamante ni parce que mënuñu ko aussi nga yor maire boo xamante ni dañ koy accuser muy sàcc ay milliards te feeñul si dëkk bi muy bi mu yor kooku ban sens lay am aussi donc dañuy war a ñëwaat autour de l' essentiel quoi mooy le développement nit ñi war a xëy caaxaan yi nga xamante ni maanaam ñu ngi ci ñu war ko mën a dépasser parce que bu dee tëgg bu dee woy bu dee fecc toujours loolu ci banlieue bi lañ koy xalaat nit ñi di dem yow ngay ngeen di gën a dellu ginnaaw ci lan xale yu ndaw yi di fecc loo ci gis fecc fecc fecc ban dëkk mooy mooy développé ci fecc donc yooyu yëpp aussi ñun ñu xam ne comme da yàlla dafa dogal ñu nekk dellu avancé bu ñu ñu war a gën a mën a profité aussi ñu ñëpp booloo ci loo xamante ni luy jariñ dëkk bi la luy jariñ sunu gox lan mooy jariñ suñu gox infrastructure yi mais tey ji jëmal tali bu mag ban changement moo fa am tali bu bees la même chose tali Icotaf la même chose mbir yu diis amul dara lépp désordre la kon léegi ñoom ci lan la ñu jëm dañuy war a continuer ni rek àdduna di dox milliards yi ku ñu soxlaal daal élection nga ñëw ñu tàccu la nga jox ñu 3500 après ñu voté la mu tut mu jax ñun ñuy nelaw rek ba kañ. parce que ay lutte yeeg xeetu mel yooyu yëpp lañu war a arrêté parce que amuluñu benn njariñ stade boobu ñu ñu defal foofu lan lay apporter waa Pikine waa ñoo fay liggéey lan la leen di apporter donc ñu gën a mën a yeewu war aussi xam ne dëkk bi day dox te ñun ñu ngi taxaw stade ñëwul fii ñu taxaw nii amul benn solo fexe kii fi jógee kii fi nekk nii ñoo xam ne réew mi liggéey réew mi taxu ko jóg. parce que bu fekkoon ne dafa bëgg a liggéey réew mi day tàmbale ci caisse noire am yi nga xam ay milliards la mu jël ko delloowaat ko réew mi mais pas ay milliards yoo xamante ni toujours day fexe nu mu gën a yokk nga naan dama bëgg wàññi train de vie de l' état train de train de vie de l' bi yow noo koy wàññi teew sa côté toujours yaa ngi fexe nu sa budget gën a yokk comme donc ñun nelawal yooyu ñu ñuy nelawal lañu war a jëm a jóg buñ ne lii dañ koy xeex intérêt dëkk bi. parce que ñun ku ci nekk bu xoolee Pikine bi mu fa juddoo ba màggee fa yeroo fa toll ne mu toll gisu fa dara lu changé yàlla bu ñëwee nag indi benn loo xamante ne réew mi mën na cee ngànk ba dem nañ ci ñafe bu ñu wootee buñ ci kenn jiitu meeru Pikine bii fa nekk Timbo yooyu lan la fa def dara defu ko fa lan la fa def. dañu war a basé wu ci nit ki moom mooy ndijaayu président wala nit ki mooy rakku loolu mooy lan dëkk buy dox dañu xool ku compétente mën a yor suñu dëkk ñu jox ko parce que ñun war nañoo gën a mën a yeewu ci bu ñuy tànn ci maire bañ a bàyyi espèce yi ñuy jël di leen tànn nga xamante ni ren jariñu dara pikin désordre boo mën a xool désordre dong fa nekk leneen nekku fa désordre total moo fa nekk leneen lu fa nekk man gisuma ko ku ko gis na nga wax mais man gisuma fa désordre total laa fa gis ku fa gis leneen moom nga wax parce que képp ku fay yeewoo di fa def boo ko mënee da fay jóge dem feneen ça veut dire que dëkkuwaay yi ni mu laaj ak ni nga ko bëgg a dundee nekkul foofu ñu war a yeewuwaat ñu xool ñi nga xamante ni bu ñu xewlee ñëpp dajow daw daw seen ginnaaw te buñ ci pare pare nañ ci liñ weesu jël di la tàllal loxo maa ngi leen di gërëm jeex na kenn kuy jóg di wax ngir askanu Pikine bi amul. kuy jóg di wax askanu parcelle amul man mosuma dégg Modou mu taxaw ne maa ngi état maa ngi lay ñaan nga defal lii sama parcelle bi 1 ba 26 boobu amuñu sax benn stade ba Balla Gaye dama ko mos a dégg muy wax loolu ay pay bi muy wax naan da koy doxi Casamance mënu ko dox géejuwaay boobu état bi fa nekk yooyu la ñu war a mën a bàyyi ñoom ci fexe côté boo xam lu ñuy def rek lu leen di jariñ la ñuy xool. nit ñi jox leen nga xamante ni bu ngeen xewlee ñëpp ay ñëw ba peuple bi ñoo ñëw feesal dale stade du ministre du président moo fay ñëw toog mosu leen fi organiser làmb ba gis président kon nekkul sport bu ko intéressé autant sax boo koy xool daanaka dégg Sonatel ak yooyu di di sponsoriser làmb ji léegi génn na ci parce que la mu nar a jox eh, làmb ji eh, nguur gee koy jël ci moom ça veut dire que ni kon kii ngeen jàpp ni dafa gëm stade bi gëmu ko terrain bi mu ñu def stade bi mu leen defal ki nga xam ni dañ doon wax ñoo ko la fin ñu xam ni don te boo xoolee ni ñu ko defaree c'est mal fait aussi quoi parce que nit mënu la may xanaa au moins war nga mën a jël ñi nga xamante ni ñoo nekk autour de la lutte nga woo leen ñu mën a joxe programme xam ne nii stade bii la ñuy def ak yu mel noonu fii daal laa ci bëggoon wax di wane ni aussi comme dañu dëkk ci dëkk aussi bokk ci bu ñu soñoon mu bokk ci yi ñuy gën a tudd loolu moo waral suñu wax waaw ñu wax lu nga xamante ni aussi dañu gis ni njëriñu ñëpp lañ ciy suur rek jërëjëf.